yebu woon gàddu seeni bagaas riimale lépp lu ñu am mel ne ñuy gàddaay mën ngeen koo yebbi wàndaank te xam ne demaguleen du samay kàddu ubbil yéenekaay bi jëwriñ jiñ dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng mu kawe mi di Mamadou Talla Mamadou Talla ma nga ñuy xamal ne l'état du Sénégal dina jël bépp matukaay dina def lépp lu man fexe ba sauver année scolaire bi waaye tey itam dina fexe ba baatub année balance moom du jub ci mim réew ma Talla nag ma ngay dànkaafu taskatu xibaar yi jàllale lu leen leerul naan donga yi dinañ dellu ca barabu jàngukaay la kadmi bi ñu dëgmal waaye tey itam dina defu plainte contre x yóbbu ko fa mbaxana doonee benn parents d'élèves yi jàngalekat yi nag ña ngay mel ne ku koy feelu naan ko loolay sax de mooy mën a xew rek jàmm ne ñooyu ndax liy donga ak élève ak étudiant ci mim réew xanaa fu ñu dajee moom mooy bomb bu kalaatee ki kenn mënta wax ba daaneel te tuddoo ko mooy gan gi ci suñu biir te buñ nee ma ngay dem rek mu gën a xëcc rombu jaanam mooy jàngoroy coronavirus bi te ñépp jaaxle ca la koy faj rawatina nag law yokkute watatu gu metti gi nekkee fii ci biir réew mi ñiy door a jug nag mooy daari murtani yi ci réew mi ginnaaw tëjug ràpp gi nga xam ne seen xel yi tëju na ko ci jàngoroy coronavirus bi rooboo nañ seeni dara këppoo seeni mbaxana ànd ak moom di watatu ci noonee ca lañ réere ci dëkk bu sell bee di Touba ñàkk pexe pexe la te xel te itam du doy du samay kàddu naar yi ci biir réew mi nee nañ suufu sëriñ Bamba ji rek moo gën a gaaw ci faj coronavirus bi nañuy julli rek tey ñaan te xam na sëriñ Bamba buur bi fàggul na ko lépp. bala ngaa ut gémmiñu sàmba dangay xam la muy walis waaye waa askanu Touba Mbàkke noonu lañu tontoo naar yi dikkoon ci dëkk bu sell bee di tuubaa dangeen a xamul li xew wala dangeen a tardé ndax jamono ji ñu toll ndakaaru Touba moom ñooy joxante coronavirus bi waaye waa Touba ñoom ñoo war coronavirus bi rek lànk te ko wàcc ba tax na barab ya ñu waajaloon ngir di fa yóbbu ñu coronavirus bi dal fële ca Touba. di centre de santé bu daaru marnaan fees na xaat benn lal desatu fa looloo waral ñi ngànk yëf yi waajal baneenu barab ngir di fa yóbbu ñooñu jàngoro ji daal li xew ci réew mi dib scandale bu rëy te kenn bàyyiwu ci xel mooy yokkuteeg dund gi rawatina ceeb ak diw ak suukar ndax saaku ceebu parfumé bu 50 kilo bi daan jar 14000 léegi egg na ba ca 19000 bu dee non parfumé bi moom jóge na ci 12000 egg na ba ca 14500. bu fekkee ceebu mbay mi bu bu vingt cinq kilo bi léegi jóge na ci sept mille cinq cent egg na ci ba ca sept mille sept cent cinquante loolu de xanaa moo tax nit ñi léegi bàyyi ceeb bi topp rek pan yi waaye tamit ku góor góorlu ba toggub ceeb tamit sab ceeb du niin diwleen bu samay kàddu ndax bidon diwlin bii nga xam ne moo daan def vingt litres jóge na ci quatorze mille léegi egg ba ci dix huit mille suukar moom la muy jar ku ko jënd danga rafle wala boo rafle wut tamit danga yalwaani ji ndax léegi jóge na ba ca vingt cinq mille cinq cent egg ba ci vingt huit mille cinq cent man de Ousseynou Ndiaye li ma jaaxal rek mooy suukaru koor